non non non man maa ngi comme li maa liggéey mooy damaa liggéey di Steam. Mhm. su gars si suñu soxlee suma musique. nga def ah, ok soundtracks yi. waaw ok waaw ba pare mun ngaa defar si YouTube bi. Mhm. sa sound bi. clip bu nekk di dee am suñu defar advertisement bi foo di clip. waaw bu nekk nga am koo daw te doo la. that's waaw. noonu la ñuy daal comme su ci bëggee am income. parce que léegi sa musique yi already day in Gambia tamit pour fans yi ak ñu la seetaan fi tey léegi nii xam nga bëgg a am si copy and so on. waaw fii nag si maquette bi. waaw waaye waaye ñu ngi ko ñu ngi ko steam mu ngi war a dem iTunes. ak mm-hmm. yooyu maa ngi amee 34 tracks. waaw good good good maa ngi indi ay bagages ay instruments ak yooyu. bala balaa ñu bàyyi la nga masal ñu tuuti because wax nga ma ne ah, wolof nga waaye da nga dee woy si soose ak inglisal masal ñu ak ci boo mun di boo mun a mos rek dem tuuti su ma ko présenté bi tey dafa xaay de moom kay moom kay <laughs> tuuti leen mos baat bi tuuti rek oh. fii ay séeréer leen fii mm. banjuloo banjuloo banjulaa juddoo man banjuloo banjuloo man de fi laa yoroo xam naa ne man bu ma sañoon falaay ñibbee bi lay waaw waaw ma ko mënoon te falaay fanaan xàlla yoon wi waa banjul ba fi teew tey hmm. yaatal leen yoon wi waa banjul ba fi teew tey fii daal ku fi yoroo dafay tabee bi lay fii daal ku fi juddoo moom dafay gure ñun waa waaw kontaan nañu waaw wane na boppam wane nga sa boppa comme ni ñu ko waxee rek artiste nii la soo ko na yëngul rek mu yëngu ak anytime kontaan ci yow bu baax a baax te di la wax ne kër gi sa kër la anytime boo amee videos US rek jox ñu ko ñun dinañ ko doxal bam nice ba pare soo ñëwatee mun nañ laa invite ñu am waxtaan bu gën a yaatu anytime jërëjëf loo am pour war a wax waa diaspora fu mu nekk nii nga tàggatoo ñu dem ak another clip waaw fii fii waa diaspora bi nag man li ma am pour wax leen mooy ne mm. comme man ni maa def di ñëw yow ñëw nga waaw bii mooy ñetti yoon maa ngay ñëw dis mm. na gaa yi tamit feneen nga boo demee France mm. man I travel in many countries in America and Europe boo demee France nga laajte ko fa liggéey ñu ne français bi England ñu ne anglais bi Amérique ñu ne américain bi waaw dégg kon Gambien bi moo war a liggéey Gambien dëgg la am sanga bi moo a liggéey because bi suñ ñëwee duñ bàyyi waruñoo bàyyi ne liggéey amut ma li amut nit ki dëkk boo dem ña fa juddoo ñoo liggéey. wax dëgg doo expect foreigner yi ñu liggéeyal la sa dëkk ah. waaw parentaire sax boo ko sampal <laughs> ñëwal nga sampal ko sa boppa waaw ndax nga am ci li la neex waaw parce que gars ñun nag sonn nañ ne si diaspora bi fii ñu ngi fi def seen tabaxal ma ñu. jaay ko ñu def ko bu gaawalantu. waaw doy na waar de. waaw waaye nag fii. man de maa ngi fay ñëw di dem. waaw te maa am suma teranga suma jàmm di ñaanal Europe nag parce que Europe bis. Europe su amee jàmm. ñun suñu teranga fa la nekk soo ñun dinañ am jàmm te réew mi dina am jàmm parce que fii ku fi wàcce airport amee one million boo demee Banjul ñu wéccee la ko ne la lan nga dese indil moo soo dëkk bi kon am na xaalis du dëgg mhm. fii mosuloo dem wécce ko xaalis ñu ne la amuñ yow xaalis sa xaalis bi dafa bëri mënuñ ko wécce on a sànga te ñun duñ yóbbu benn butul soo ndegem fii laa ñëw uh-huh. fii am nañ fi ñun ñëw ñu liggéey fii mm. ku fi am dara mm. na ñëw mu jënd paaka mu tabax waaw loolu pour ñu nekk si diaspora bi la waaw because ñu bari ñu bari si jamono yooyu buñ tukkee dañoo ne ah that is done ah fi dara nekku fi waaye dangaa waxaa ñeena comme ça for example ñi ñëw nii soo si toogee kenn wala ñaar waxtaan ak ñoom ne hey Gambia dafa change léegi Gambia is so developed am na ñoo xam ne ñu ngi fi bàyyi depuis 15 years ago they've never been here ah 20 so dangaa gis ne su ñëwee dañ dee surprise ba pare daf dee amaze daf leen dee amaze in a way ne dinañ gis structures yi ba pare seen moroom yaa ngee sampa si dëkk bi xam nga loolu rek wane na ne dëkk baa ngi développe soo ñu ne ku dellu si wit ku dem daal fexeel nga dellu si soo ñëwut doo mun a xam li fi nekk am na lu ndaw lu ma bëgg yokk si limaat waaw waaw fii góorgóorlu championship bi man maa ko sponsor mooy 200 xaleel yu mooy 50 ya mm. maa ngi fay ñëpp seen mm. trophy si seen médaille si yëpp man maa koo fay soo ah, li ma bëgg a diaspora bi nag mm. ñu won leen de yëre xale yi ma di dajale every year two hundred kilos kilos yi mm. seen kër yi taaka su ma mm. ñëwee laajte dem fa ma joxe am na compagnie su ma may ay every year mm. maa ko yóbbu si school si joxe ko fiim ko su ma demee woon leen fiim bi ne joxe naa yëpp foyekaay xale yi nañ di indi ay carton ko yóbbu si lopitaani xale yi loolu rafet la so loolu lu ndaw la man xam naa ne su ma mënee def one percent mm-hmm. am na ñu mën a def hundred percent waaw kon kon buñ xeeb dara buñ xeeb dara lañ ñu dajale waaw kon daal ñu ñaan ñu si dëkk bi ñu nekk si diaspora bi ngeen ko loo leen am daal dellu si sa dëkka moo gën a important waa loo dem dem fexeel waat kon ñu bàyyi ko mu dem moom kontaan si moom bu baax léegi ñu am break di ko si yeneen artistes yi fi tamit tontenga jali marita nutele gaminga dudatila ini Okay, okay, okay. That you're watching your Ngonal program right here on GRTS. Of course, um, with me in the studio, comme niñ koy waxee rek ay artistes yaa ngi fi bari sakan fi lool kaar Ngonal moom dañ leen bëggal rek am nañ fi ko xam ne gëj nañ koo gis dinañ gis kilibam waaye duñ ko mën a gis si suñ plateau bi ni ko gars yi waxee si suñ studio pour ñu gis ko fi problème la waaye nag tey mom xëcca nañ ko indi xaw ma ko def loolu waaye thanks to that individual léegi. tete ñina lela biye tete ñina lela fewo duna dani kanil